dalleen ak jàmm ki yëngal jamono soxna Aida Diallo moo yëngal jamono ci 17 avril gi nu génn soxna si ma nga woon ca Medinatu Salaam ngir màggal 17 avril yàmme woon ak bis bi nga xamante ni moom la sal Saliou mbake daje woon ak Serigne Béthio Thioune moom mi fi nekkoon njiital cantakun yi mu sol ay yëre yu weex tàll ngir màggal bis bi ci jamono jo nga xamante ni jàngoro ji di coronavirus mu ngi lëmbe réewum Sénégal li leen nekk ab façon buy wane ni soxna Aida Diallo jàmm la bëgg ci jàmm lay dox ndax kat jamono yi ñu génn bari woon na ñu bari ci askan wi ñu ko doon ŋàññi ku ci mel ni Junior Cissé Lo Serigne Moustapha Diakhaté Serigne Saliou Fall Mbabor ak ñeneen ak ñeneen ñu mën ko méngale ak Mère Teresa Soxna Aïda Diallo nit la koo xamante ni xol bi dara nekku ci ndax kat boobaak léegi jugut ci def ay geste yu baax surtout ci xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex jàngoro coronavirus fi ci réew mi bu ñu fàttaliko bi feebar bi di doog di dugg ci mi Aïda Diallo yëkkati woon ak juróom teg ko ci loxoy ministère de la santé et de l'action sociale loolee doyut mu dekkatiwaat ñaar fukki million daat koy tegaat ci loxoy état bi ñu ni déet mu jëlaat lu toll ci 35 million moom ak ay wujjam ku ci mel ni soxna Bator Saliou ak soxna Adja Saliou ñu jëbalaat ko ci gafaka gouvernement bu Sénégal ngir xeex jàngoro coronavirus waaye mu mel ni soxna si dàbbaliwaat na lu ni mel ci 17 avril gi nu génn yame woon ak bis bi cantakoon woon ak Cheikh Béthio Thioune ci la dal di yëkkatiwaat lu toll ci juróomi million tegaat ko ci loxo yi ministère bu Abdoulaye Diouf Sarr waaye soxna si yamu ca ndax kat yëkkatiwaat na lu toll ci ñaar fukki toni ceeb daat koy séddale askan ba yeewoo ca Medinatu Salaam lii rek di wane ni daal soxna Aïda Diallo ab joxe moom kenn mënu ko ci lii rek la Olof Njaay di wax naan ku mën na def